بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw jongante yaatal mbindum alxuraan mi C3S doon amal ci réew mi di première édition bi remise des prix jàpp nañu ko ñetti fan ci weeru juin 2018 li ko dale 9h ca 6S muy bés bi ñuy jébbal ñu gën ràññeeku ci jongante bi seeni neexal di seeni lijaasa ñu di ko yëgal mbokk jullit yépp xalif généraux yi këru diine yi sëriñ daara yi ndongo daara yi di ko yëgal njiitu réew mi son excellence El Hadj Macky Sall ministre de la ak mboolem ambassadeur réewu jullit yi ci Ndakaaru muy remise des prix première édition concours yaatal mbindum alxuraan ak c 3 c 3 compagnie Serigne Sénégal di gërëm mboolem ñi bokkoon ci concours bi tey sàkku seen teewaay ci remise des prix yi ñetti fan ci weeru juin ca mise en place heures.